am nañ ci wóor ne ñeen ko seqal ñëpp ci réew jox nañ sëriñ bi àqam dëgg boo ko boo ko joxee àqam mel ne di sëloo di sëloo xam ne ñu bokk réew yëpp ñu nga bokk di jullit yëpp xam nañ ne gis nañ ñu yëge sëriñ gis nañ itam am ci digg ba boromam ko jàpp àqam loolu yoolu xam ne am na ci wóor kon nag loolu ñoo ngi leen di sant leen ci gërëm bu baax a baax di ci soññ suñu bopp fas yéene bu gën a ànd ak yéen gën liggéey lislaam nag moo liggéey jullit yi rek loolu alhamdulilahi rabil alamina eh, sëriñ bi fàggu loolu lépp eh, te lii dëgg di géew turam muy Abdul Xadim abdullahi wa xadimu rasuli moom jaamu borom rek doon boo see digg bu yonent bi nag ak ndigal lépp jaam surga bu yonent bi rek lay doon ndax dàkk ci boobu jaamu borom liggéey yonent bi loolu alhamdulilahi rabbil alamin yoon ay jaamu yàlla lañu te jaamu yàlla rek lañu war nu itam ci nañ ko war a liggéeyee ndax mooy rek ñu ngi liggéeyee yonent bi dañu suñu kéem kattan la ko féem sax waaye ñu def ci suñu kéem kattan ci liggéeyal ko moom liggéeyal ko ci lislaam liggéeyal ko ci lislaam nag mooy ko ci jullit ñi kon nun suñu digganteeg suñu mbokki jullit yi nga xam ne donc jël yépp lañ ko seqal waaye rawatina ci rek ñi nga xam ne ñoom lañ seqal réew mi bokk yàlla booleel bokk booleel lislaam booleel réew mi comme te jox nañu ko àqam seen kéem kon loolu ñoom la leen di fayee ni ñu delluwaat suñu wàttif sa dàkk ci jaamu yàlla ni ko suñu borom namee ñu ne ko sëriñ bi bëggale sax dàkk itam ci liggéey sëriñ bi ci lislaam mooy sa liggéeyal ko loolu loolu loolu moom la ñuy bokki jullit yi rawat na suñ bo kilifa yi islaam yi yéen ko seq yéen seq liggéey bi liñ leen di wuyoo mooy dafa séenee sax dàkk ci jaamu yàlla ni ko suñu war namee ci noonu ni ko sëriñ sax dàkk itam ci liggéey Sëriñ Tuubaa liggéey bi ci islam mooy liggéey bi ci jullit yi kon nañu xam ne ñun jox na leen ñaari loxo fas yéene liggéey Sëriñ bi ci ñoom muy liggéey bu islam loolu moom mooy suñu wàcc li ñu war a doyloo itam ñi nga xam ne sekk sekk nañu sekk sekk sekk sekk nañu lislaam bi sekk nañu liggéey ñu sekk liggéey bi loolu la seen jug la suñu jukkal ci ñoom mooy rek ñu gis ñu ñu xool taxawaay xool suñu diggante ak ñoom ñu gis fa bu ñu fa gis lu dul jaamu yàlla ni ko su ni ko ni ko suba na ci ñun ni ko sëriñ Tuubaa bëgg ci ñun sax dara ci la ci liggéey sëriñ Tuubaa ni mu liggéey yonent bi sax dara ci liggéey ko ci wàll yëpp rawatina ci suñu diggante ak jullit yi rawatina suñu diggante ak ñi nga xam ne ñooy suñu ñoom la bokkal barab bi muy réew mi ñu bokk lislaam ñu bokk ak bokk kon ah, na ñëpp xam ne ñun suñ taxawaay mooy sax dakk ci jaamu yàlla sax dakk ci liggéey Sëriñ Tuubaa ci lislaam ci jullit yi loolu mooy kàddu yi nga xam ne moom laa jottalee nañu góorgóorlu bu baax ci ñu jëkk def suñu suñu yitte yëpp ci lislaam dëggu ci ñun bu lislaam dëggu ci ñun ñu ànd sa déggoo jàmm yi ñu bëgg ci bi wax laa ci réew mi foofu la loolu ji kilifa yi xam ne ñoom la yàlla jiital ñu kilifa yi lislaam yi bu ñu góorgóorloo lislaam gën a déggu ci ñun lu gën a ànd gën a déggoo di julit di julit dëgg di taalibe bi itam nag ko defee rek lii nga xam ne moo xam ci àdduna bépp muy ñëpp mas nañ bëgg jàmm te xamuñu fu ñu ko fu ñu ko fu ñu noonu loolu bu ñu ko defee jàmm am na nu ko bëggee loolu nag bu ñu ko waxee ñëpp war ko gëm ndax sëriñ bi bu xool sëriñ bi ñu jóg noonu bu am doole bi mu dajee di gaare moom ay at na mu gën a tiise na mu gën a tare lépp mu dar dar dar dar dar dar dar loo ko ñun ñëpp te teg teg teg teg boromam ci ko ci ci kanamam lépp mu def ko te yàlla tax liggéey liggéeyam bu rëy bi mu liggéey bi ak si fii tey xaddamul toxu dee turuut kon bu nu wootee jàmm ñu war ko gëm xaddamul li tax ñu ne fi xaw xaw sax ñu wax ko noonu waaye dañ mel ne xat lu yomb la jëf wala damm kon liggéey sëriñ sëriñ bu réy bii mu liggéey fa mu fekkoon yow lislaam moo ndig ma fii ñu toll xat dem dee tuut ah, loolu bu wootee jàmm dañ ko gëm kon nag eh, eh, noo ngi tàllal sunu bokki jullit yépp rawatina sunu bokki jullit yi nga xam ne moom lañ moom moom la ñoom lañ dëkkal ñuy sunuy bokk di sunu bokki jullit di sunu bokki dëkkandoo noonu lañ tànn loxo ba baax a baax a baax jox nañ ñu loxo waaye ñaari loxo na leen di jox noonu kon góor góorgóorlu bu baax na diine dëggu ci ñun na lislaam dëggu ci ñun te lu góorgóorlu jéem a ànd te yàlla tax te déggoo mën ko defee lu nu namm lu nu bëgg lu nu bëgg rek mu am bëgg rek mu na mu gën a rafet te dara te jàmm rek ay amee jërë ngeen jëf ñi ngi sant ñépp jigéen ñi di béggee ñépp ci diine lislaam kon kàddu yaa ngoog jërëjëf moo ngi sant bu baax a baax a baax sant bu baax a baax a baax a baax jëw dolli dara am na lu bari lu ma war a waaye loolu doy na moo ngi sant bu baax baax baax